عظيم سلطانه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصل اللهم وسلم وبارك عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام البررة ومن اقتفى آثارهم إلى يوم دين رب العالمين أما بعد fa uusikum cibaad allahi wa nafsi bi taqwa allah fa hiya arbaxu almakaasib wa biha tunaalu acla almaratib ayuha alixwa taciishu alummatu alislaamiya hadihi alayaam itlaalata caamin mubaarak bacda mudiyi caamin kaamilin bi afraxihi wa atraaxihi allati minha hadihi aljaa'ixa allati cammat albilaad وغيرت الكثير من من نظام حياة المجتمعات ونتضرع إلى الله العلي القدير أن أن يرفعها عن الأمة وعن الإنسانية جمعاء أيها الإخوة ما أسرع مرور الأيام مرور الأيام والليالي وتصرم الشهور والأعوام ولكن الموفق من ذلك من أخذ دروسا وعبر وتزود من الممر للمقر ويقول عبد الله وخديم رسوله في كتابه مسالك الجنان واعمل في الدنيا بما تكون تمكث فيها أيها الفطين واعمل لأخرى قدر ما تبقى غدا فيها ومن قال فذا لاقى ردى ويجب علينا ونحن في مطلع العام الجديد أن نقف waqafaat almuxaasabati aldaqiqa maa anfusina taqwiman li suluukina wa tasxiixan li masaari xayaatina ayuha almuslimuun gaaliban maa nansa wa naxnu fi qidami alistidaadi li laylati alcaashura alaxdaat alhaama allati waqaat fi hada alshahri almuxarram wa minha alxadatu alhaam alxadatu alhaam allati gayara majra altaarix walladi yaxmilu fi tayaatihi maani tadxiya walsabri waltawakkul ala allah walictisaas bi mahma balaga kaydu alaadaa wa quwatuhum innahu ayuha alixwa alhijratu annabawiyatu alsharifa allati bisababiha shaa nuuru lislaami fi jamii arjaa ilmaamuura bokk jullit yi ginnaaw bu ñu sant yàlla yàlla mu màgg moomu di ko tuubal te di ko wax ne yow rek mooy ma yaay sunu buur di ñaan mu jéggal nu bàkkaar yi nga xam ne moom la nit ñi gis ak yi nga xam ne moom rek moo koy gis di ko seereel ne li mu yónni yonantam bi sallallahu alayhi wa sallam loola lan fas yéene ñaan sax ca ba fa ba bañuy dem ca bis bu mag ba ñoo ngi ñaan borom bi mu julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam ak i ñooñu ñëpp ginnaaw loolu nag ginnaaw bi ma dénkee sama bopp maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla li nit di gën a am gën a am mu amal ko njariñ ëllëg mooy ragal yàlla mooy li nga xam ne itam fu waay egg ci kawe moom rek moo la fa mën a yóbbu beneen leneen mënu faa yóbbu askan du la fa yóbbu alal du la fa yóbbu daraja du la fa yóbbu bokk yi nag dafa mel ni fan yi ñu toll ñu ngi dund ba tey ci njalbeenu at mu bees mi ginnaaw bi nga xamee ne am na genn benn at bu jàll ci sunu dund at benn at boo xam ne am na ay mbégte yu ca nekk ca biiram waaye am na ay metit ak i coono yu baree bari yoo xam ne ëmbaale na ko bokk na ci nag boo xam ne ba ndëgëni ñu ngi koy dund muy tiis bi nga xam ne daa daj àdduna bi yépp soppi itam lu baree bari ci ni nit ñi doon dunde kon li ñu def lu dul ñaan borom bi subhaanahu wa mu yëkkati ko ba mu xeet wi yëpp mucc ci waaye doomu aadama yëpp sax ak àdduna bi yëpp mucc ci te mooy li ñuy wax covid 19 bi bokk yi nag sunu dee xool at mi jàll daf nuy wan ne bis yi daal ni muy jàlle ni muy gaawee ëpp na guddi yi ni muy gaawee ëpp na ndax sax duñu wax ne weer yi ak at yi ni muy ni muy gaaw na lool kon nag loolu day wane rek ne ki ci yàlla defal tawféex mooy koo xam ne tey jii bàyyi nga xel ne bis yi gaaw na guddi yi gaaw na weer yi gaaw na at yi sax gaaw na bu ko defee nga daat ne kon nag te ren ren jii dey ak li ci sama kanam fas yéene na maa góorgóorlu ba nga xam ne fee ma jëm ndax ginnaaw fii ab rombukaay rek la ndax ni mu gaawee boole ci gaawaay bi am na foo xam ne fa laa jëm te du fa jóge bu ma fa àggee kon nag naa gaaw wut yóbbal bu doy boo xam ne su ma àggee dana ma jariñ foofa loolu moo tax al abdul xadim di wax ne ci boo demee ci téere bi ñuy wax masalikil jinaan nee na dun àdduna bii nga nekk soo bëggee xam mook àllaaxira noo ciy doxe nee na bu benn bu ci nekk da ngay xool ba xam diirub ba nga fay am nu muy toll bokk yi koo xam ne dañ koo wax ne ko dangay waaj ab tukki boo xam ne da fa def at ak tukki boo xam ne benn fan nga fay def ndax yóbbal bi mu war a yóbbu ñoo war a tolloo du duñ warunoo tolloo loolu ci misaal rek mooy diggante àdduna ak alaxira koo xam ne àdduna ay fan yu néew nga fiy def alaxira ay at yu dul jeex la kon waroo sàggane at sa àdduna si kon lépp looy def na ca sa ëpp li ëpp say waxtu li nga ciy def na doon loo xam ne lu la amal njariñ fële la waaye bul jël sa wax yépp def ko ci fii nga xam ne danga fi romb rek jàll loolu moo tax euh, bu at mi jàllee ñu dugg ci at mii jaadu na ñu taxaw ak sunu bopp xoolaat sunu bopp kenn ku nekk ci noonu na taxaw ak boppam euh, euh, bàyyi xel nafaraat ak dundam def taxaw seetlu ci boppam ana lu awut yoon nga jubbanti ana lu aw yoon nga fas yéene koo dolli kon loolu at mu jeex loolu la war a tekki loolu la war a jariñ li muy war a jariñ mooy nga xam ne lu sa dund rëy rëy am na at am na at yu ci manqué am na at at manqué na ci léegi kon day gën di manqué rek bis bu bis bu jàll xamal ne manqué na ci sa dund kon mbokk yi dafa mel ni nag ñu baree bari ci ñun dañuy faral di fàtte ñenn ñi nga xam ne xëy na bu weer wi bu at bu weer wi duggee di weeru muharram daa am guddi gu ci nekk goo xam ne berne yi ci nekk daa am ñoo xam ne daf leen a jàpp ba da leen di fàttewoo xew-xew bu mag bi xew ci bis ci ci weer wi li tax ñu jàpp at mii dafa am lu tax xew-xew bu tax waaye léeg-léeg am ñoo xam ne bu ñu nee weer wi dugg na rek la seen xel yépp di nekk mooy guddi googee ak berne yi ci am ba tax jàngat bi ñu war a def ak yëg-yëg bi ñu war a am ci ah ci weer wi duñ ko am te dafa am lu xew lu am solo nag lu ci xew loo xam ne moo tax ñu sàkkal ko date ko ci mu doon am atu julit loola mooy gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi gàddaay googu dafa soppi lu bari ci histoire dafa soppi lu bari ci doxinu lislaam dafay wone ne am na ñoo xam ne jaayante woon nañ jaay seen adduna jaay seen bakkan ngir yëkkati lislaam day wane ne am na ñoo xam ne lu ne daj nañ ko ngir muñ ngir lislaam ak ci noonu tey jii bokk yi day wane ne am na ñoo xam ne la la si pexe yi noon ya doon bari lépp la seen kàttan doon bari lépp jëloon nañ seen mbir wéer ko ci yàlla xam ne moom rek ay buur te moom bu la nee jaaral foofu bu la jàppalee rek kenn mënul ci yow dara kon nag bokk yi xew-xew boobu dafa jar di fàttaliku bu baax a baax su ñu waxee tam xarit mi ngi li muy tekki mooy weeru tam xarit bi at mu bees mi bokk li muy tekki mooy at mooy xew-xew bu mag ci lislaam boo xam ne ba ba ba saxaaba yi toogee dañoo gis ni amul xew-xew bu gën a rëy ci lislaam ba tax na lu ñuy tënk nañ ko tënk ci xew-xew boobu mooy gàddaayu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon bokk yi nu bëgg a nafar tuuti ay bind yoo xam ne lu mu gàtt-gàtt war nañ koo jariñoo ci xew-xew boobu bokk yi bind bi ci jëkk mooy lan mooy wane ne eh, dooley lislaam dooley lislaam ak sunu doole ñun jullit ñi nañu xam ne ci ñaari baat la tënku bi ci jëkk mooy lan mooy wéetal yàlla nangul ko fu mu joxoñ nga jëm foofa fu mu tere doo fa jaar mu jaral la lu nekk itam nag waaye ba ca tegee nag mooy nun ñi nga xam ne ñoo bokk nangu loolu nan boole sunu kàddu muy benn ñu bañ di juyoo bañ di xëccoo ndax waxoon na buur bi waxoon nañu ne su ngeen ko defee da ngeen di néew doole kon nag bind bu am solo lañu bàyyi ko xel beneen bind bi ci des nga xam ne mat naa bàyyi xel mooy ndekete gëm yàlla lu mënut amut bokk yi ngëm yàlla gu dëgër amut lu mënut day tax nit ki wóolu yàlla ba li muy jànkoonteel ak li muy jàkkaarloo lu mu metti metti ak lu mu diis diis rek moom du xool lu dul xam na ne yàlla mi ko dig moom mu day teg bëtam rek ci la la ko yàlla dig xam ngeen ne loolu moo mën a waral nit koo xam ne ay noon dañ koo jàpp taseeg moom ca jeewal takk yor seeni xare yor seen i jaas yi ëpp ko doole mook ñi ma àndal ñëpp ci saaxir waaye muy mën a wax ne man dey maa ngi nii ñu bari ñi ma àndal ñi ngi jàpp ne man damay dox waaye man fi may dox jëm ci yàlla rek laa jëm jëm ma fudul ci sama borom ñoom ñi jàpp nañ ne dañ maa jàpp jàpp nañ ne ay prisonnier laa waaye man xam naa ne ci yàlla rek laa jëm ndax li ko waral mooy dafa teg bëtam ci li nga xam ne mooy li ko yàlla dikk moo tax gisul coono yi ak métit yi nga xam ne moom moo nekk ci kanamam bokk yi beneen bind bu am solo boo xam ne mat naa jàng ci gàddaayu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi bi jullit ñi gàddaayee ba ñëw gàddaayee Makka ba ñëw madinatul munawwara fekk fa seen mbokk jullit ñu ñu ñu leen tuddee muhajirin ñi ci des ñu tuddee le ñu leen tuddee ansaar yàlla tagg leen fu nekk nag ci alxuraan ñooñu yàlla def leen a tagg wane na nag lu waay baax baax moom ñooñu kenn mënuti leen a dab kon nag loola ñooñu noonu la ca gën a am solo mooy taxawaay ba nga xam ne seen mbokk yañ fekk si woon na xam bu leen fàtte ne ba ñuy gàddaay di dem dañoo bàyyi seen i kër bàyyi seen i alal bàyyi seen judd bàyyi seen i mbokk bàyyi seen lépp dem foo xam ne ay doxandeem lañ fa te yàlla rek tax yàlla jaral leen ko nag bañ ñëwee ñu fekk fa mbokk yoo xam ne itam jikko yi lislaam wax ne moom la ab jullit war a mbokk jullitoo moom la war a jikkoo digganteem ak mbokkam fekk fa ansaar yoo xam ne ñoom ñoo leen gënal seen bopp yàllaa ko wax ci alxuraan nee na ñoom àgg nañ ci suñu amee benn dañ koy jël jox ko muhaajir bi te ñoom ñu ñàkk loolu jikko yu rëy rëy la yoo xam ne ah, yu mat a bàyyi xel la yoo xam ne day wane ne warees na ko jàng nun jurit ñi dem ci xew-xew bi buñ koy fàttaliku tey beneen bi ci mujj bokk yi mooy ndaw ñi xew-xew boobu dafa am solo ba nga xam ne ndaw ñi dañ cee joué ay rôle yu am solo ndax sunu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu àndee xaritam bi ba dugg ci xunti mi ngir làqutu noon yi te am fa ay fan ñi ñi ko doon indil ñam yi ñi ko doon indil naan yi jigéen ju ndaw sax bokk na ca waxuma la ay ndaw waaye jigéen sax bokk na ca waaye ay ndaw lañu woon yoo xam ne ñooy indi loolu bu guddee itam ñooy indi xibaar yi wax leen di xool fu noon yi nekk te ku ne xam ne lu ne mënoon lu leen caa fekk kon loolu day wane ne ndaw lislaam wërta yaafus wërta des ginnaaw ndax ñooñu ñooy ay royukaayam te ñooñu loolu lañ wane ñi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jéggal nu te jéggal ñi nga xam ne ñëpp ñooñu jiitu woon ci diina ji te mooy ña ca jiitu mooy saxaabay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ci sun mag ñu baax ñu ne fii yàlla nañu yàlla jéggal te jéggal leen waaye ñi ngi ñaan itam borom bi subhaanahu wa taala mu def ci suñu xol cofeel ñu bëgg jullit ñëpp waaye rawatina nag mag ñu baax ñooñu yàlla bu yàlla def ci sunu xol ñu dina ëmbal ak noonooy bokk yi ñu ngi ñaan borom bi ginnaaw dund moom fokk day am fu muy yem ñu ngi ñaan jëf yi ñuy jëf yi ciy gën yàlla na doon yi mujj ci sunuy jëf sunuy dund li ci gën yàlla doon fan yi mujj ci sunu dund ak fan yi mujj ci sunu dund yàlla na doon fan yi gën ci sunu dund sunu tey yàlla na gën sunu démb waaye sunu suba itam yàlla na gën sunu tey sunu borom lañuy tàllal sunu loxo di ko ñaan di ñaan itam mu dëgëral lislaam ci kanam noonu yépp waaye mu mu dëgëral itam sunu xalifa bii nga xam ne moo fi nekk di Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom dolli ko ndimbal te boole ko ak ñu baax képp yu baax yàlla la yàlla xiir ci moom nga ànd ak moom ba li muy liggéey ni ko yonent bi sallallahu alayhi waxe woon ni ko yàlla borom bi waxe woon nee na ko woon huwa alladi ayadaka bi nasrihi wa bil muminin yàlla su la jàppale it nee na da caa boole nag boole la ak ñu baax ayadaka bi nasrihi lu mu la jàppale te ndimbalu yàlla ku ne xam ne doy na waaye nee na fokk nga am ñu baax nag ñoo àndal yàlla na ko képp kuy ku baax rek yàlla na ko yàlla booleek moom ba li mu sumb mu àggal ko waaye loolu it yàlla na ko yàlla defal mboolem képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci tollu bi ak foo mën nekk ak jamono ju mën a doon